wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa maulana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahabatihi alghurri almayamin wa ala xayri xadimihi dil xabli almatin wa ala man iqtafa atharuhum ila yawmi ddin mbokk julli di asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu gannaaw bi nu santee suñu borom subhanahu wa taala julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam tey jaajëfal Cheikhul Xadim noo gi leen di nuyu di leen siyaara den ndokkeel ci bis bu tedd bii di siyaara bu baax a baax sëriñ Mamoor Mbàkke mi nga xam ne moom la nu fekk si muy taxawal bis bii di ci fàttaliku waajuram Cheikh Amadou Moustapha Fadil yàlla na ko yàgg woote nu yàgg ko ca wuy nuyu suñ sunu wàllu sëñ Babacar Mbacke di ko nuyu baax moom itam waaye muy jàngat xasida yëpp eh, di leen ndokkeel ñun ñëpp suñu wóllëre la ñu ngi leen di ñoom ñëpp ñaan yàlla kenn ku nekk la nga cay yëngatu barke xasida fekk la ca barke Seexul Xadim xam naa waxtaan tawi fàttali ko lay doon ak soññee ci lii nu booleeg Serigne Touba te mooy ak taalibe te borom bis bi ku ko xamoon xam ko ci loolu te jamono dafa toll foofu li jaxasoo bari na yëngu-yëngu yi bari na li rax ci yëf yi lu ci bokk doon bari na yi fëkkee it bari na ba tax mu fakk ñu bari mu fakk leen fàtteloo leen ñooy ñan ak lu leen tax a jóg te nit ki nag balaa ak njullitam a mat day njëkk xam boppam ba noppi mënoo xam yàlla taxa taxamoo sa bopp baatu gëm sa bopp yàq ay wax la wax ju yàqu la gëm yàlla lañ koy def da ngay gëm yàlla te xam sa bopp nit day xam bopp waaye du gëm boppam dañuy gëm yàlla te xam suñ bopp soo xamee sa bopp na ci nga door a mën a xam yàlla te xam yàlla nag mooy xam sëriñ bi ndax mooy moo def suñ digganteek moom mag ñi àndoon na Sëriñ Tuubaa nag te bari lool te ñoom ñëpp defaru ñoom ñëpp jag te am itam yiw suñu borom wu rëy rëy wax na ba tey ci seen njaboot seen sa ci lañuy ci la ñuy barkeelu di ca dund di ca xewu dara mayu leen kon lu weesu ak taalibe taalibe googee nag day man luy bëgg luy bëgg a far ci sunu ci biir bari lu ko rax lu ci bokkut ak taalibe damay faral di wax ne du mbirum bopp mu beru diine beru lislaam beru déedéet waaye pàddu la ci biir diine fu mu toxoo diine toxoo fa système bi Sëñ Tuubaa doon yare doon ci yeesale lislaam moo tudd ak taalibe murit li baat bi tekki mooy aji namm mooy ko am lu mu bëgg lu bëgg lu namm di ko wut loolu baat bi tekki nit nag mën naa namm lu ne mën naa namm lu baax mën naa nami safaan mën naa bëgg lu wax mën naa bëggu safaan waaye dañ caa idaafa ismul jalaal muy muridullahi ndax ñaari murid rek am muridu dunya ak muridul axira loolu sunu Boroom bi wax ci alxuraan ne minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu laaxirata am na ci yéen ñoo xam ne muridi adduna dong lañ tax moom dong la ñuy wut am na ci yéen ñoo xam ne muridul laaxira lañ mooy mooy yàllaa leen tax a jóg ak bis penc mooy adduna soluñ fi dara murid googu la Sëriñ Tuubaa woote sëñ Tuubaa dara rëy àdduna mosu koo tax a séqi jéego mosu koo soxal mosu caa gees mosu koo geesu xool sax firnde ji may dafa waxoon ne yaar yëf rekk a tax ma sañ ci Tuubaa daw nit ñi ak daw li ci loxoy nit ñi bi ma yegsee yaar laa fi fekk wéet nde ak saawo kon mooy ab àll dong la fekk wit nda mooy ñi ko xamut def naa jolof-jolof yi dañ ko xam mooy pël yi nga xam dañuy màng fu ñu wàcc dafa am néeg yu ñuy defar yoo xam ne ñax kese lay doon nga xam day mel lu kupp kupp ndal noonu nga ni sax daanaka mu ci sigi taxaw taxaw baax loolu la tuddee wit nde saaw mooy fa ak jur di jaar kon li mu bëgg a wax mooy ab àll dong laa fekk bi ma fi ne jàng nag ñaara ma fi fekk ku yàlla dong ñor ak ku àdduna dong ñor tamit mbubboo yàlla mu ne ñooñu ñaar nag kenn jaaxaluma ci su dee ki yàlla ñor dinaa ko mat ci yoon yàlla ba ne ko yàllaa ngi nii waaye su dee ki àdduna ñor nag dinaa ko xëpp àdduna de ndax su ma jox nag te ci dara waaye bis penc nag la façon borom bi jox ci ay xéewal ak tiraanga ak may su ma koy séddoo ak sama ñooñ bu ma xool yi ba ndax li siixoon joxoon na ko ci nag def naa lu mat a bàyyi xel la moom nag moo xoon ne bi ma agsee bi ma nee bi ma nee bërit àdduna def ma dëgmal waaye ma ne wëlbit woon ko gannaaw dëgmal sama borom aqabalati dunia ilayya qablu wa bi'tuha fa zala andil qablu loolu mooy bi ñu door jóg mooy bi sëñ Mor Anta door wàcc ab liggéey ca Mbàkke Kajoor ca atum sachi ci gàddaay gi te bu 1882 ñëpp dégg nañ bi ñu dencee sëñ Mor ba noppi ñu féete ko waajur jàngal ko mën a waroon ko waroon ci won gannaaw àdduna waaye moom mu di leen woon mu di leen woon gën a maanaam mu leen ci ñoom ci dëgmal gu ñu dëgmal àdduna loola kersa la ci ñoom sàmb sura bari sa nag kii moom bopp bi day feesut ndax pouvoir bu toll nii daal ku ñu koy gaara nga di ko gaan sa boobu dafi ndax boobu jege buur boobu boobu boobu lu amoon solo ndax fi xam tey ji mu ku ñu woon ne Macky Sall ku ku woo ne kaay ma kaay ma def la conseiller nga bañ dañ naan daa te booba lool liñ koy woo lool lool la tollool ñëpp ni ki bopp bi daa feesut ba mu delloo cel def ñaari xasida tontu ñaari kuréel yëpp mag jàll tontu xasida ak xaaloo li yarkan li abwaabi salatini taxus jawaisa tuxni kullama xiini fa qultu xasbi rabbi waktafaytu bihi wala suradi xayri almi wa diini walastu axsha wala arju siwa maliki leenu jële yoxu nii nii wayun ji nii ba xas dëgg ne ñoom di nee nañ man naa dégmal wunti wóor yi ndax lee ma làq fa ay may yoo xam ne dana ma jariñ ci sama dundug adduna waaye ma ne leen yàlla doy na ma te doy loo na ko te adduna si dee umba ci seen soxla lu weesu xam-xam ak diine anna ufawwidu ahwaali liman ajisa an ali sa masakin ma man ndax ndaa jël sama bi di ko dénk ko xam ne mbirum boppam képp da koo të kon su boppam doon métti képp jaaxal ko kooku nan laa koy dénk sama mbir ndax ne man daal ku ñuy ku ñuy jox sa bopp ku nekk ñaar rek tax mooy séentu fa njariñ mbaa rag am loo ragal bëgg ma dox sa diggante loolu lépp yàlla yàllaa ko amee kon nag sax kon booy may wéeru ci yàlla rek lay lay lay lay lay wéeru su ma amee lu may wut yàlla koy sàkk su ma amee lu ma ragal ci yàlla la koy musloo ba xas dëgg jeex ñaanoon boppam feesum mu tontu leen xaaloo safihun li sarfi anhuma basari wa raxbati an soy lisaan fil bashari xaaloo safihun li tafid ila maliki ba xas ma wit nee nañ sama bopp daa feesut ndax lan dëgmal gi ma dëgmal sama borom wan gannaaw àdduna neen sama bopp daa feesut ngir li ma ragalut kenn ko yàlla neen sama bopp daa feesut dem ba ca mujj ma ne alhamdulillahi in kaanat safahatuna idamatul wirdi wal adkari wal fikri fekk ñàkk fees bopp daal mooy jox sa bopp yàlla di ko tudd ko fàttali ko ko jàmm fekk loolu ñàkk fees bopp kon sama ñàkk fees bopp gi moom sant naa ci yàlla baax yàlla na ci sax kon noonu la ba wane ko àdduna dégg man mu wan gannaaw àdduna nee ñu dem ba yàgg àdduna wan ma gannaaw def na su ma wanee gannaaw dinaa ko dabu waaye ma dégg ma sama borom ne ca la ma woon rek wa baadaha anni adbar wala amillaha li kawniha daaru zulam loolu kañ la mooy bisi bi ñu ko yóbbu ci géej gi gisatul mbokk gisatul xarit gisatul taalibe gisul jegeñaale gisul lu may nit ñu xonq ñoo xam ne saa bu ñu xëyee xëy ci lu lu fi jëlee bakkanam saa bu ñu ko dogal dogal def jëlee bakkanam juróom ñetti at yu manqué tuuti juróom ñaari at ak juróom benn weer xam ne saa bu gont lu fi jëlee bakkanam lay doon mooy wax ne ba muy wax ne sama kër ya wéet na sama njaboot tasaaroo na te dara teguma ko loolu dëggeel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boobee tiis na lool boobee la ko àddina woon gannaaw woon gannaaw waaye mu dëgmal boroom la ca la nekk rek nee ñu dem ba yàgg àddina wal bi bu malaan ma wa ba'daha li aqbala wa inni aqbaltu lillahi wa qamandi àddina wal bi di di waaye fekk na moom ba dëgma sama borom dafa su ko yéene geesu sax mu ne ceenu mujj wi na àdduna ndax maa topp ànd wi wi ànd ak man dëppatut mu ne ñi ma ànd ñi ma topp nag am na ñooñ boo leen di waxal mel ne man la ñu topp te fekk déedéet na ji mii ma topp lañu topp si sa àdduna dëppoon ñu dëpp kon ku ne xam na lañ ko toppe ka ko toppee yàlla rek kese kese kese kese jam doon indi doon ko woote su ëllëgee lu mu am yéen a koy bokk waaye ku ko toppi àdduna dong dégg wax wax naa léegi ci gannaaw li waxoon ne ku àdduna soxla dinaa la ko jox waaye bis pénceen la ma fa sama jox su ma koy séddoo sama ma xool yi ba la lañ seexoon joxoon naa ko joxoon naa ko jox la àdduna waaye loolu lu mat a bàyyi xel la te àdduna taxutoon ñu fekk Sëñ Tuubaa taxut ñu gàddaay sunu dëkki maam ak dikk dëkk moom bàyyi sunuy passeport ñëw yaakaar ko jox ko suñu bopp àdduna taxut mag ñi ko njëkk a topp dane woon àdduna bu leen fi gees bu leen yaakaar lu toll ni xot xottu gerte wala goo xam fi dara kan jàpp nañ sax ñoom am na loolu dayen da waaye séntu ko jàpp nañ di am kër ak ami soxna ak yoon jàppoon nañu bokku ci gannaaw bi leen ca dab rek kon pas-pas yooyu nag daa mel ni fi ne mooy bëggatu mu rànk ak murid nag suñ tubaa ko jàngale bopp moom mi ko wootee teg ko ci juróom-ñaari ponk yoo xam ne ko fexe ba remplir juróom-ñaari ponk yëpp jàppal ne murid saadix nga sañ nga ko tuddoo sañ ko woote woo sañ ko dàkkantaloo te muy dëgg ku ca manqué benn soo dee murid it na la wóor ni doona ko li yantabi kullu muridin saliki raamal wusula lil badii al maliki ala umurin fi'luha bururu wa tarkuha min al hawa gururu wa hiya bila ziyada wa man yulaazimha yahu siyada loolu nee na képp ku wut ku jëm ci yàlla di ko sàkku maa ngi koy yee ci ne ko maanaam ki sóobu yoon yu bëgg a dem maa ngi yee ci ne ko ay mbir ngi yooyu munu munu caa ñàkk a tënku tënku ca mooy dëgg-dëgg ak mbaax su ci tënku na na ko wone bànnee xam war na ko ndax yoon juróom-ñaar la yoo xam ne ëpp li yeesul waaye ku ci tënku ku nekk dana làq ak càng mooy dana doon ab sang loolu mooy ponki taalibi taalibi gu dëggu ba muy lim bi mu njëkk a tudd mooy liggéeyal sëriñ bi te liggéey ba nga koy liggéeyal jëme yàlla dong tax mooy ni mbir yi du doxee rek bu ñu wootee xel koom waaye beneen liggéeyu kilifa nga bàyyi sa liggéey tëj sa place dem ca liggéey ba dem ci sa moyen bopp dem liggéey ba mu jeex doone na ma sëñ bi fay da ngay delluwaat delluwaat ci sa liggéey. suñu woote daayira nga wuy ji suñ laajee nga joxe doo lijjanti fu muy dugg loolu lépp mooy xit loolu la ñu tuddee ma liggéey boo xam ne soxla woo da daray tey waaye ëllëg a tax ak ngërmal yàlla mu ne boobu mooy bi jiitu ci ponk taalibe gu dëgg loolu suñ dubaa ne awwaluha al xidmatu li shaykhi nasih li wacci baaxin at xat atamitu fasih ba ko ñaareel ci ponk taalibe gu dëgg mooy nga bàyyi gaaral ak diingat diingat ak gaaral mooy li nga xam nag néew nañu ci mucc ci ñun te bàyyi ko ci taalibe gi la bokk diingat mooy ngay laaj mba di waxi sëñ bi mbaa ay jëfam di seet loo cee rafetlu ak loo cee ñaawlu di seet loo cee topp ak loo ci dul topp gaaral nag mooy nga boole cay baat sëñ bi day wërtoon a wax nangam mbaa sëñ bi day wërtoon def nangam sëñ bi day xam naa nangam gaa yoo ko ci dugal rek yooyu li fekk bàyyiwul na lu woon doonagoo am murit li fekk bàyyiwul doonagoo am murit te loolu néew nañu ci mucc ci ñun te neen danga koy bàyyi ci saaxir bàyyi ko ci baatin bàyyi ko ci saaxir mooy doo ko wax mukk ci saw làmmiñ bàyyi ko ci baati mooy doo ko fas mukk ci sa xol loolu sin tubaa ne wa thani tarku li'tirad zahira wa batinan ba yakunu tahira ba ko ñetteel mooy jàng jàng ci taalibe gi la bokk de sàkku xam-xam ñetteelu ponk taalibe gi dugg mooy xam lu say faratay jëmm ñaari farata rek am ñaari farata faratay doy ak faratay jëmm fardu ayni ak far fardu kifaaya fardu kifaaya mooy farata joo xam ne su ca ñenn taxawee fexe bu matal ko doy ci sëkk mu wàcc ña jëles su ci koy ñëpp mas am bakkaar ci masal nit fi bàyyi ko faatoo fekk li fekk am na ñu dem taxawu ko ci sangu koog sangu koog denc koog ña ñi mën nañu doxi seen soxla su ci kenn taxawutoon nag ñëppee mas am bakkaar loolu dama mel misaal moo la ci jox mooy mooy faratay doy faratay jëm na mooy farata yi nga xam ne su mboon da ko gàllu julli bu nekk waaye nag kenn mënu ci wuti kenn ku ne yaa ko defa sa bopp kenn mënu laa wutu julli lagee kenn mënu laa wutu waral la ak ya mel noona yooyu na mooy faratay jëm yooyu nag suñu xam ko fexe ba xam ko noo ak noo ko mën a xamee di ko jëfee may ñetteelu ponk ci ponkiteel bi dëgg moom la wax ne saalisuha taallumul furuudi al mutaayanati bi tafridi ba ko ñeenteel ci ponk taali bëggu dëggu mooy fàggu da ngay jébbulu fii mu ne am na ñuy tuddoo murit te jébbuluwuñu fenn bari na man xam naa ñu bari ñoo xam ne murit la tuddoo waaye jébbuluwuñu fenn xamoo koy seen sëriñ waaye li fekk jébbuloo ko na la wone doonu ko am murit sa boo faatoo ci foroon foroon nga xëy na ko faat lañ njëkk a laaj mooy anab sëriñam jébbulu ab sart la ci ak bi li fekk jébbulu ko doon nga mën jébbulu mooy jaayante moom la moom la la yoon saas doon woote mooy jaayante loolu mooy jébbulu moo la suñu demande raabi xas islaamukum bi xusni zannin fa suu zanni mu dil ni neen ñeenteel mooy nga jébbulu te rafet njott ca ka nga jébbulu ci moom rafet njott mooy tax ci ngay jéem rafet njot mooy tax sam xel dal ci jëf ay ndigalam sam xel dal ci bàyyi ay tereem lu mu la digal sa xel da cee dal ndax day xam ne lam lam li digal loolaay la gën ci yow lu mu la tere bàyyi ga sam xel da cee dal ne bàyyi ga mooy la gën ci yow sëriñ bu ma teeb sëriñ donte lim la digal daa wutee la nga xamoon nit jàpp ne sa njariñ mooy mi ngi ci lii mu la digal yow mosuma dégg sëriñ Moustapha Salih mu joxe ci misaal mu leer te te te gàtt te jege da ko ci ab feu rouge feu rouge xëy na amul fi waaye ñi dem Dakar xam nañu ko mooy làmp yi ñuy def ci intersection nga xam ne day am lampe verte am bu rouge am bu son soo jàng code de la route dañu lay wax ne son bi bu tàkkee mooy nga ralentir teggi sa tànk su xonq bi tàkkee mooy taxawal su wett bi tàkkee mooy demal mu ne ña la waxoon lool nag léeg-léeg mbir mbir de ba tax léegi ñu jël seen ndaw teg ko fa su fa ndaw su fa ab asan xasee taxaw ne lamp yu kontuutut sooy jàng dañ lay wax ne ab asan mooy ki ëpp doole su taxaw lamp kontuutut tableau kontuutut balise kontuutut soo ab asan jàllee fë door caa topp muy lamp su lamp jàllee tableau d'or ca topp su jàllee bëri su su jàllee ligne luñ rëdd ci tali bi topp ca noonu leen tegaloo bu fa ab asa xasee taxaw nag léeg mu ruus may la demal léeg mu wert may la taxawal fekkee daa wert mooy la taxawal nga ne ko du taxaw ndax daa wet ku ne xam na la la ca fekk su ruusee may la demal nga ne dem ndax daa ruus kon xam laa ci fekk kon lee nga xamoon yow waaye lii nag ci la sa njariñ nekk lee mooy la nga xamoon waaye lii mu diggal ne ci la sa njariñ nekk ab sëriñ mooy loolu lam la tànnal donte daa wuti la nga xamoon it jàppal lii mu la tànnal yow ci la sa njariñ nekk rafet njot na mooy tax nga mën ne wéy ca loola sam xel dal ca moo tax mu sësale mu boole benn ponk mooy jébbuloog rafet njot ca nga jébbalu ci moom ba ko juróomeel ci ponki taalibe gu dëgg mooy aju ci sëriñ bi aju gu wér sëriñ Tuubaa neenu looy looy dégg looy dégg mu ne sama taalibe mbaa samay taalibe lépp ci li may wax aju lay jëfandikoo baatu aju lay jëfandikoo al mutaalliquuna biya lay wax suy digle wasaytukum yaa man taallaqu biya suy ñaan wax fir li kulli di taalluqin biya toujours baatu taalluq lay aju lay lay laaj taalux mooy aju ñi aju ci man kenn ci mag ñi mu sëñ ma bañ njaay sëñ bañ jox ja bàll masha Allah sëñ bi ne kon day mbàkkee bëgg noonu leeral ci baatu taalux baatu aju sëñ bi ne ko laaj nga lu mat laaj wal fere yi donc leeral na ko taalux te mooy aju mi ngi mel yow mu sol saw dàll di dox fi barab ba am loo joggi loolee tax ca dàll wa te bañ koo kël ngëj tama ne nekk dàll wa ci nekkoy ba laaj na leeral xam su fekkee dangaa joggi xooxu màng bu woowagut mu tax ci saw dàll mbaa xeer wu ñagas wu am cat mu takk ci dàll wi soo doxee ñaari jógi dañu nooy def da ngay taxaw dindi ko sànne lu tax da koo kël ngëj moo tax da koo kël ngëj moo tax na ca tax te bañ koo kël ngëj xam bu toojee sa tànk sa dox dootu neex mu ne kon na ca tax da bañ koo kël ngëj <coughs> suñ toogee ci jataay bi yàgg ñu ne am na luy xeeñ ñu seet seet gisuñ ko dañoo xam ne neen seet dàll ya bu seetee dàll ya dàll wuñ ko fekk dañuy génn nag moom xeet ko ci biti ba mu set ñu delloo si dàll wax la ko war a mooy kon daa mun a nekk dàll ci waay ba mu ne su muccee ci ñaar yi dafa dàllootee loolee dafa daal loolu mooy temps lox loolu mooy aju kon la mooy taxu sëriñ bi taxu sëriñ bi tekkul fu mu ne nga ne fa la muy teg mooy foo mën a nekk loo ko sori sori na nga sax ci jëfi ndigalam bàyyi tereem nekk ci la bëgg ko ca nekk soo ko defee foo nekk yaa ngi taxu sëriñ bi sëñ ba jaxate moo na ko firiloon daa waxoon ne sëriñ ku aw ndigalam yaa nekk fii wanagam nefib xolam ëpp sëriñ kuy mooy ndigal sëfu ko te donte yaa ngi fi poojam tey mooy ndigalam seenu diggante fi sundar loolu kon mooy ko te yaa ngi fi poojam tey mooy ndigalam seenu diggante fi sundar loolu kon mooy fa manding manding mooy àll bu sori ndax donte yaa nga fa manding tey jëfi ndigalam xamal ni yéen a ngay réesoo yàlla seere na ko kon jege sëñ bi ak sori ko kon du ci jëmm waaye ci melokaan la aw doxin la aw jëfin la ci nga ko jege ci nga ko sore moo tax sëñ Musaa Ka wax way wax ju sëñ bi waxoon sëñ bi daa waxoon ne kuy topp sama ndigal di bàyyi samay tere yaa ngi fi sama wet ku jëfu ndigal bàyyi wa nag yaay ki ma sori mu ne si si si ma saaga ne kuy topp sa ndigal di ba li may tere li may tere loo sori sori yaa ma koo xam ne doo topp ndigal doo ba tere loo ma jegeñ jegeñ jegeñ yaay ko sori waxaat ne tuxul ci ay xaram sancal ci ay maraam bàyyi xaram bàyyi ci bel doon a malaam Cheikh Bamba nee na loolu moo di dëkkam ku ko mënul doo dëkkandoom doo mbokkam kon aju gu wér mooy juróomeelu ponk taqoog sëriñ nag ci jëmmu mën naa am njariñ waaye mën naa amit lor sëñ ma sëñ bay jox doon na ko misaal ci ak dex ak dex ki yow mën na caa jariñu dem sangu naan root yóbbu waaye ki ko xamul nag mën na caa lapp muy lor ci moom mu da sëñ Musaa waxoon ne ñett ñett am ci ñuy jege sëriñ bëkk néeg ak bokk néeg ak bukkib néeg ni dañu way bokkunde bëkk néeg ak bokk néeg ak bukkib néeg su dee bëkk néeg mu ne sa bëkk néeg day toppatoo sa lépp luy bëgg yàq mu defar ko lépp kon bëkk néeg baax na sa bëkk néeg day toppatoo sa lépp luy bëgg a yàqu mu defar ko lépp comme mu de kacal topp mooy koo bokkalum nekk bokk bokkum nekk suñ mu sàkkan koo bokkalum nekk koo koo yaa dem sàqam day tibb tey lekk di may ay mbokkam loolu na ban ci kër ñoo xam ne lu lang lu lang lu rek ñëw koo bokkalum nekk koo ko yaa dem sàqam day tibb tey lekk di may ay mbokkam kaca topp mooy bukkib néeg kon nag moo ci yees moom mu ne ko def bukkib néeg nday doxaan sa waa kër di sàcc sa xaalis di fab sa suukar yal nañ ci yàlla ah kooku moo ci moo ci gën moo ci yées loolu lépp na am na ci kër sëriñ si nag ñett yëpp am kon juróomeel mooy aju ci sëriñ bi loolu wax ne xaami soxaa taal bilaa marad xalbin bi chakan atatatu bin arad ba ko juróom benneel ci ponk taalibe bi dëgg mooy danga koy bëgg dangay bëgg sëriñ bi bam gënal la sa jëmmi bopp gënal la say doom gënal la say waajur gënal la ci nit ñëpp te loolu mooy lislaam yéen saa samas naa wax ne seen diine seen gëm du mat lu may dama leen a gënal seen bopp seeni doom ak seeni waajur ak nit ñëpp si naaw man ne ko ah man de wax dëgg yàlla yaa ma gënal ñëpp ba mu des sama bopp nag mu ne ko Omar li fekk gënalu ma sa bopp sa diine du mat sinon ne ko léegi léegi yaa ma gënal sama bopp mu ne ko léegi ok sa diine ngi door mat nag sa gëm mi ngi door mat kon sëriñ bi kon balaa sa taalibe mat bëggam def ko muy sa bëgg jël ak bañam def ko muy sa bañ nga xam léegi moo lay bëggal di la bañal loolu si Tuubaa ne saa di suha xubbun yaquudu lin jaal muraadihi fawqa munaahu bin fial juróom-ñaareel bi mooy lépp looy sàkko ci yàlla na ko sàkko ci barke ndax mooy sa buntu ci yàlla te alxuraan nee na waatul bu yoota min abwaabiha su ngeen dugg ci am neen na ngeen jaate buntu bi gannaaw mooy sa buntu ci yàlla na kon lépp looy sàkko ci yàlla na ko sàkko ci barkeem loolu la wax ne saabiuha alla yuruma faida bi gayrihi mimman ata bil maida fa haadihi atan muxaddamaati li taalibil ismati kon juróom-ñaar yi mooy àndaar yi nga xam ci la murid bu nekk ne natt boppam soo ci nattee sa bopp fees ko dell jàppan léegi murid saadix nga sañ nga koo tuddoo sañ ko wuyoo sañ ko dàkkantool te muy dëgg léeg nga gis ko biñ ci téeran diw sàngam murid saadix est-ce que remplir na juróom-ñaar yi ma lim su ko remplir dëgg la su ca desee benn nag murit nga de waaye doonu ko saadix nag kon ku ne na ci xool na xool boppam xool juróom-ñaar yooyu suñu duwaa li mu doon woote mooy yeesal diine yi lislaam lil Mustafa nawaytu maa yu jaddidu sunnatahul gharra wa inni ahmadu damaa ñëw ngir fas yéene yeesal diine Mustafa sallallahu alayhi wasallam def ko ci darajaam diinun siwa islaamihi la yuhmadu inda al bihi nu jaddidu jépp diine ju du diine lislaam du diine fa sun borom diine lislaam jooju laa yasal si ma waafatuhu kuli min allah bi taharat usunnatu insha rabbi ubayin wax na ko fu ne waxee na ko nu ne yeesal googu nag ci njëttiif la ko defee taalif jàngale yare bu dee taalif li ko yóbbu ci taalif fekkoon na fi téere naam yoo xam ne nit jamonoom ci téere yooyu lañ jànge moom ci bopp ñu ci téere yooyu la jànge waaye téere yi fi nekkoon yépp téere yu la lu daa jàng laxdari yu asamawi yu maxadamatul isiya risalatul abi sayyid al xayrawani yi maxamatul xariri yi daaliya chanral jahiliya alfiyatun malik yooyu yépp téeri naar la te bindkat bi nag suy bind day bindal ñett may réew mi mu dëkkal ñoom lay bindal xeet wi mu bokk ñoom lay bindal jamono jim ji muy dund jamono jooju lay bindal kon ni fekkee bokku leen jamono yu ngeen dund ndax naar yoo ko taalif faatu nañ lu jege téeméeri at ci gannaaw su fekkee bokku leen jamono yu ngeen dund bokku leen réew mu ngeen dëkk bokku leen aw xeet soo leen taalifee ay ay teer mën nga mën nga mën nga mën nga am ba ci wax moo tax téere fiq yi ñu jàng fi yëpp ban na ci xam ne duñu la ko jàngal fii ci réew mi moo doo xam lu mu dañ ko jàngal ci xeet yi ñuy génn asaka yooyu waaye yow tur ngay jàng noonu waaye doo ko xam ndax amul ci amul ci réew mi mu gis nag teg jàngal ku nekk joxaaleele la culture am boo seetloo ko jàng ci tubaab ya suñu bisee tubaab bu sotti lay doon ndax daa jàng xam-xam ba jëlaali culture ba ka jàng ca naar ya ñaari su ñibbisee naar bu sotti lay doon ndax di jàng xam-xam ba jëlee culture ba bëgg na nit yi jàng am xam-xam te seen culture du soppi ko loolu ci bind taalif jël téere yëpp mu taalifaat ko dëppale ko suñu culture dëppale ko suñuy baax dëppale réew kan da jàng am xam-xam te sa culture du soppi ko loolu ko yóbbu ci taalif bind ca lu bari bu dee jàngale sëñ Tuubaa musta bàyyi jàngale laata muy woote li muy woote sëriñu jàngale la woon daara ji sëñ Mor Sali yoroon ndax sëñ Mor Sali xam la doon jàngale fu ne nit daa fa ci moom bi sëñ Mor wàccee moo ko wóotu ca daara ja wut na ko soxla laata muy faatu ndax mu mujjoon na daanaka mooy jàngal ñëpp yoon na daara jooju am atum lëmm sachi di mille trois cent la si mboor wàcce ab liggéey mille euh, mille trois cent un mille trois cent mille trois cent rek d'abord mille huit cent quatre-vingt-deux mu jël daara ji di jàngale luy tolloog ñaari weer ndax dénkaan daara daara ji dem tukki ci biir réew mi réew mépp mu ko fépp fu ñuy tudd boroom xam-xam moo xam borom xam-xamu zahir la wala borom xam baatin dem na ci yow bala mën bala mën mën na jël ci yow mu jëli ko ci yow ba réew mi daj ñafaatu mu dem ci seen bàmbe si yàlla leen dem gànnaar defe ko noona del siwaat jëlaat daara ji yoraat ko luy tollo juróom benn weer xanaa boo ko natt digg suñu war faatu ak ak booba juróom benn weer la ci la xëy xëy nag dajale mboolem daara ji ne leen rasulullah saa nde dafa sa dafa dafa musafa ak man mooy dafa waxante ak man ci kàddu kàddu ne ma tërbiyal mbooloo mi nga ànd ci pëstéef tamay tey yam ci njàngalem kese daa ni kon képp ku fi ñëwoon te njàngum kese in la fi mën nga seeti feneen foo jàng ji ku nu bëgg ànd ak man ci li ñuy dox nag tamay àgg ci yàlla mën ngaa toog loolu la wax rek daa daa dugg daa di mbooloom seet li ko ñaari xaaj ñetti xaaj ñenn ñi dogu ci toog ndax moom am nañ ci moom doyul ko wax na xam nañ lu mu nekk loolu lu wóor la mel na mbooloo mi ne wax dëgg yàlla nag jàng dong nu fi indi woon kon ñoom dañu dañu daa daa teg seeni bagage ñoom ñenn ñi nekk ci jeexi jaaxaar dañuy demoon duñu toog mu dee seetaan rek bañ ñi dem dem ñii toog toog suñ ma jëm suñ ma suñ ma lim jëm neen fa daxebal jullu wa baxyal xullu lu ëpp takk nañ seen bagage dem lu néew fa des la néew la des nag ci la tàmbalee ak ñoom ci ab liggéeyam waaye loolu tax ko wan a bàyyi jàngale kon tarbiya dafa ñëw kon doon mbirum bees mu soppi mu mu mu tàbbi si taxul mu bàyyi jàng ndax bi nekk gànnaar bi nekk jolof yëpp ñoom daa daal njàngal téere yi mu bi ñëwee njaareem ba gën a tab je gën a xat mu soppi njàngal yin wax leen jàngal ci ay tomb ak rëdd di ko leer ci wolof yi leer nañ kon da daa soppi méthode bi muy jàngale waaye mu sa nu mu sàkk ay daara samp ay daara samp sëñ daam Abdourahman Lo mu jàngale alquran samp sëñ Mbàkke Buso muy jàngale xam-xam ci Touba njaareem mu samp sëñ Modou Awa Ndiaye mu samp sëñ ma dem asamin leen ñoom daga ñu jàngale xam-xam kon yeesal na lislaam ci taalif waaye yeesal na lislaam bi tam ci jàngale bi ko ñetteel muy tërbiya daanaka mooy mbir mi nag ndax moom la ko yéen saa su joxoon digal rabbi ashaabaka bil himmati moo at lépp ci liggéeyam ci la ko jëm ci la daaneel sama kàddu ndax jàngkat yaa te war a jàng woote nag jàngale naa koy misaal mooy jàngale mooy nit ñëw neel dama bëgg a dem jumaa ja nga ne ko jumaa ja ku fay dem da ngay jaar mbedd sangam jaar mbedd sangam jaar dem wax la ba mu leer ci sabab ba ba soo jógee mën daal dem jumaa ja soo ko defee moo xam ne boo xasee wàccoon nga moo xam demoo mooy jàngale. tërbiye nag mooy waaye ñëw damaa bëgg dem jumaa ja nga jàpp ci loxo ngeen dox ba nga ne ko jumaa jaa ngi ni duggal kon tegtalatoo ko mooy jàng mooy tegtal ko. tarbiya nag mooy yóbbu ko ba àgg ci gën leen tarbiya mooy nga wéet ak nit ki di jeex soog moom guddeeg bëccëg di dindi ay sikkam ay bon bon di ca def say baax baax la sikk ci moom nga di ko dindi li baax ci yow nga di ko def ci moom soo dem ba sikk yi ngay dindi set wicc baax baax yi nga def ci moom fees ko insaan kaamil ngoo ko day daal di ma sëkk lañ ko doon doya ndax day daal nekk jaamu bu yàlla bu ko ma sëkk ab jaam doon xalifatullahi fil ardi xalifa yàlla ci kaso bu sëkk ab xalifa doon doon ko texe àddina ak àllaaxira te lan ñu bëgg la mooy bëgg ñu texe àddina ak moo taxoon bu doon liggéey ci noonu loolu mu defe ci mbooloo moo xam ne mook boroom képp ñoo xam nañu toll cib lim cib dayo te ñam defar ñëpp a jag sëñ Tuubaa musta ci defaru kenn ñam defar ñëpp a jag te ko sëñ Bay jaxat ne woon defar nga say bokk defar aw jaambur ba ñëpp jag nga jàpp nag sag jaambur man ci bopp mu sant yàlla ci ñam defar ci jag gi ñu jag liyanqaada anjaabun yafuzuuna bilmuna wa ma aaqani an sukul mawlaaya asbaabu maay sant sama borom mi nga xam ne moo womatal tànneef yoo xam ne maa leen defar ba ñu jag ba liñ bëggoon lépp ñu am kon benn sax boo def sama deel sant yàlla kafaani xafiidun maani on jumlatal ida wali xaada ahbaabun bi mu uzhiru nusxa sama borom mi aareeku musu moo fekkal samay no borom tam womatal ba ba leen jàkk xam piir ngi ne ñu jàgg ngi ne baax ngi kon mu defar mag ña defar seeni xol tërbiye leen bañ ma ni ñuñ tëggaat bañ nekk ay wurus te Sëñ Tuubaa dara du bokk ci moom di di di tilim wala ngay takk dara Sëñ Bay Jaxate doon ko misaal ci ci xaalis ak wala wurus na ci murit gi di mu di nir nir lu murit te doonu ko Sëñ Tuubaa xàmmee na ñëpp suñ ñëwee Tuubaa niroog waa Tuubaa te suñ demee ci mbir yu mel nii kaw ba waaye Sëñ Bàmba mënee su koo nax mënee su koo jàmmal ko taw la day tax loolu Sëñ loolu wax xàmmee na ñi ci rax te bokkuñu ci kon dañuy defar suñuy xol bam sell ndax suñ suñ suñ suñ mbay jax ne xànjar lu dar dar ci wurus xasal bu ko tëgg di gis xam ne dafay niir wurus nde du wurus wurus du fa suñ tubaab mooy tëgg bi xànjar bi mooy ki jaxasoo te bokk ci dégg naa am na ko wax ne suñ suñ suñ mamoor suñ mamoor suñ laa dégg naa fan yi muy wax ne mu Muntaxa dama koy ñaanal ne ko yàlla na la yàlla musal ci ñi ci ñi ci ñi ñi rax te kenn mu leen ci génne ñi ci bokkut kenn mënu leen ci génne yàlla na ci yàlla musal ñi ci bokkut te kenn mënu leen ci génne xànjal lu dar ci wurus xasal bu ko tëgg di jës xam ne dafay niru wurus ndedu wurus wurus du fa dana xaalis lu weexul bokku ca ndax wurus lu sellul bokku ca xaalis lu weexul bokku ca wurus lu sellul bokku ca bàmb lu baaxul bokku ca nan bàyyi foofu jullit fa kon nag ñi aju ci moom tam na leen bopp ñu war a sant yàlla bu baax a baax a baax xam ne xéewal lëgg suñu bam indi ci suñu bitim tam tam ko jariñoo waaye la nga jariñ yàlla na yàlla na fekk nga xam na nga ko war a jariñoo ndax newoon na lal lal lal naa ba ci sama ah, ah, <laughs> dégg nga dafa na fal mutaalliquuna biya law laa taalluquhum biya la daxalu naara baada mawtihim wala mu de tan xel bi doxal jante wa jël mu takkoon Sëñ Tuubaa nee na ñi aju ci man suñu ajiwutoon ci man faw ñu dem sawara déggal baax wax ji ñu aju ci man suñu ajiwutoon ci man faw wu ñu dem sawara doon donc ñuy dem àjjana nañ dañ njëkk a jaar sawara ba am fa diir ba noppi kon jaar gi ñu jaar ci loxo mu defanu ba tàqaleen lu yoonu sawara loola nu musal ci sawara moo def naar ba newoon ash-shaykhu ahmadu ni'matun awlaaha xaatil xalaayiqa kullaha mawlaaha nee suñ tubaab daal xéewal la gu yàlla defar ba mu jag mu indi ko ci suñ biir nga bëgg ñu xéewloo ko rek kon yàlla nañ ko xam te jariñoo ko Cheikh Amadou Moustapha Fadil na borom bis bii ku ko xam ku nekk ci ci tali bi la ko la ko xam Cheikh Amadou Moustapha la ko la ko suñ lu tudde jox ko ko moo ko tër bi yàlla boppam yaral ko boppam ba wàcce ko samp ko muy samp bu dëgër wax daneen ku soxat ku soxatu du tee mu jàbbi defe naa jabi na ba ñëpp gis ko taalibe googu yi nag lu mu am moo ko ko may jàpputoon boppam doomi Sëñ Fall waaye taalibe Sëñ Fall la jàpp ba ba ba ba naka jël loolu la adressé woo lu mu mas ne bëggu Sëñ Fall mu taxaw ca fexe ba mu jàkk man bi jumaa ji noppee Sëñ Fall ne ko li ma jox ci jumaa li ma jox ci sa alal ma def ko jumaa bi mat nam soro kon tànnal soro bu la ci neex nga féete ko ko tànn naa ba féete ak yow <laughs> mooy sa sa barab sëñ bonu sax da féete kër sëñ Fall moo tànn naa ba féete ci la mën laa def ci ay eh, eh, en tête pay pafi en tête am ak yëpp so bool ndax ndax ne sëñ Fall dane ko li ma jox ci jumaa ji mat nam soro tànn naa bu la ci gën ne ko tànn naa ba féete ak yow mm-hmm. mais mas naa xëy sëñ suba teel ñëw ni suñu baa suñu fal fay ko fay bu woyof mu ko mbàkke la nu xew mu ne ko sama bët de dafa xonq takk ko weexal sa bët dootu xonq ndax wañu ko dellu këram takk ñetti million ñëw jox ko ko suñ fal daal ni yuut yuut boolu cere jox ko ne ko fas ci loo bëgg mu jaxaw ko ne ko fa ne ko fasal ma ak taalibe la ak ak ak lépp ak yow nag si fel tiim ndaw li ñaana ñaana ñaana ñaan ni ci tëf mu jëfandiku lan ci mën a ba noppee mu dindi kaalaam sotti ca la jas takk yóbbu këram nee na ginaar googee da ko weer ba mu wow mu dëbb ko ba mu makk ba muy sunguf lu masa soxla ba ca campee ñaan aajom faju baatin bi nekkoon ca nga xam ne lu mu wax suñu boom fekk ko ca ni mu daan jekk-jekk dogo ci mbir nga xam ne ñi ñi xew ñëpp dañuy tiit dañ ko dafa do baatin du fenn dama dama dama wóolu suñ fàllu rek dama wóor ko wóor ne fu ma ko fu ma ko waddana mu fuyu ci pas-pas képp la ko teg waaye ne du baatin du dara kon pas-pasam ak taalibi ngoogee koy ku koy tuddoo danga ko war a roy am sëriñ bu baax de baax na lool waaye lay lay tax mu je ndax baax gam baax moom lay jariñ baax gam baax moom lay jariñ waaye noonu la koy royee nag yow loolu lay jariñ ci te muñ ko rey leen di lees lu wees ak taalibe ak taalibe lañ doon waxtaanee ko te xam ne ne bu doon bu doon bu doon waajur bu baax képp moom man ne fagam moo fi gën waajur dama si am du su ne yëkkati loo xam ne fi gën bàyyi tamit dëgg kon ku baax jur la dong su doyoon kon moom mu toogoon waaye gis nga lam doon daj kon nañ ko roy ci taalibe googu yi mooy tax ñu am lañ bëgg àddina ak àllaaxira ñu ngi leen baax def na xaw nañoo guddal suñ bàcc Jóob nga ne toog war a jàng suñ Ousmane Diouf nga ne suñ Amir lay ngi ak jànkat yëpp ñu ngi leen ñaanal yàlla na yàlla defal ndam defal leen tawfiq suñ Mamadou yàlla nag yàgg woote bés bi yàlla yàggal ci kanamu taalibe yi te guddal fan yokk wér gu baax defal la kàttan ba la nga yéene ñoom nga am ko waaye ñoom liñ bëgg ci ñoom ko yàlla sunu bam boole dimbale ñëpp bal defal tawfiq xiir nu ci njub te saxal nu ci te def nu dëgg dëgg taalibe Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa nangu sunu sunu taalibe maa ngi siyaare boroom borom këram sunu day faatu kan <laughs> siyaare soxna Faati Ngay ñoom ñu ngi leen di nuyu taalibe yi ak mbooloo yëpp ak seen Xaadim asalaamaaleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatu